asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. niñ koy defee rek ci di bokk di nafaraat ak bokk di fàttaliku lenn ci ndénkaan yi nga xam ne Serigne Touba daana ko dénk jullit ñi ak mbooleem ñi nga xam ne nekkoon ci ronam ngir bëgg am ngërëmul suñu borom tey jii nag mu doon baat boo xam ne danañ seetlu ne daanaka ndénkaaneem bu ñëw bu nekk am na ñaari baat yoo xam ne soo xoolee danga ko ci gis. muy ndigal ak tere mu mel ni nag dañoo bëgg xamal ne nit ki nga xam ne dafa jóg te bëgg a am ngërëmul suñ borom am na ñoo xam ne bu leen jàppee ñuy xaritam danañ ko wommat ba àggale ko ci ngërëmul suñ borom am na ñoo xam ne nag nee bu fekkee ne da ànd ak ñoom ñoom ca safaan ba lañ la yóbbu mu ne kon ki nga xam ne dafa jóg te bëgg a àgg ci ngërëmul suñ borom li mu war a def muy ab xaritam nga xam ne bu àndeek moom dana ko dana ko gunge dana ko teral ci yoon ba mu àgg fa nga xam ne fa la suñ borom di dël lëm dël ñi nga xam ne jaar nañ fa mu war a jaar muy àjjana ñii mu war a def mu ñi mu war a jàpp ñuy ay xaritam nee na mooy ndigali suñ borom ndigal yi ñooy doon sa boo jàppee say xarit nee na dana saw yoon dana neex te da nga àgg itam ci ci ci la nga xam ne moom la suñ borom dëli li nga xam ne nag mooy tere yi nga xam ne moom la suñ borom tere nee nañ mo yooyu ku leen jàppee say li nga leen war a jàppe ñooy da nga leen war a jàppee rek ñuy say ay noonu ndax ñoom kat fo wamatuñ la jëmale fenn fu fi nga xam ne fa la suñ borom di tëkkuwoo ña muy tëkku muy sawara sa te yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñëpp ndax nee na aj maanaam boo buggee xam nag ndigali suñ borom yi mooy lan nee na mooy warteef yi ak yi nga xam ne dafa bëgg koo def ak lim nu jox ngir ñu mën cee dimbandikoo ngir mën a def lim bëgg ak li nga xam ne da bëgg ñu def lim nu lim lim li nga xam ne dafa war ci ñun ak yi nga xam ne dañ dafa bëgg ñu def ko nee na nag boo bëggee xam tere yi suñu borom mooy lan nee na mooy loo xam ne suñu borom da koo araamal wala dafa bëggul ku ko def wala loo xam ne boo ko defee itam wóor na leen benn njariñ nekku ci nee na yooyu mooy yi nga xam ne ñoom da nga leen di war a jàppe ñuy say ay noon ndax fan la jëmee doonut fi nga xam ne fa gën la waaye nee na ndigal yi moom saa yoo leen jàppee ñuy say xarit saw yoon dana neex te da nga àgg ci fa nga xam ne mooy fa ñuy terale ñu jaar fa ñu war a jaar bu dee tere yi nag ñoom ay noon nañ yoo xam ne ko ànd ak ñoom saw yoon du neex te fan la jëme itam doonut fu fu fa gën fa nga xam ne fa neex la fa kon yàlla na suñu borom dimbali ba nga xam ne li nga xam ne ñi nga xam ne mu ñu àndee ak ñoom suñ suñu yoon dana neex te danañ dugg fa fa gën yàlla nañ suñu borom booleeg ñooñee nargal nu ca ban duñ def leneen lu dul loola ñi nga ñi noonu yi nga xam ne nag bu ñu ànd ak ñoom seen suñu yoon du neex te fan ñu jëmee itam neexul yàlla nañ ci suñu borom musal ba ñuy jaar fa ñu war a jaar àgg ñu war a àgg xéewlu ci xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom digle loolu suñu borom mën na ko jàpp nag yàlla nañ ko defal wasalaamaaleykum wa rahmatullah